salaamaaleykum mbokku diaspora bi ak salaamaaleykum di nuyu àdduna bi ñëpp di siyaare ñëpp di leen jaale ki nga xamante ne tey mooy Pape ba Diop di wax ne di ko jaale àdduna bi Pape Bouba Diop ëpp nañ jaale Sénégal kese yem ci mais dañ koy wëral àdduna wëral képp di koo jaale Pape Bouba Diop tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy dëkkuwaayam di fi nga xamante ne tey mooy Tëngëj Asalem fi Pape Bouba Diop fi la defee lu bari si terrain bi ñu taxaw nii tey fi nga xamante ne fi ñu ko naree ñu koy defal suba ñu ne fi la fubalee lu bari fi la ko defee mooy xale boobu nga xamante ne mooy Pape Bouba Diop yàgg na bëggal sénégalais yi bépp mbégte xamante ne koo defal ñun Sénégal yàlla ko yàlla suñu borom fay fële ca àjjana yàlla na ko Seydina Muhammad teeru ca àjjana Firdawsi yi yàlla na ko yàlla booleeg mu gisanteeg malaakal yërmande moom Pape Bouba Diop di wax ne xale bu ndaw dafa demee maanaam ndaw âge de 42 ans la xamante ne tey la génne àdduna njabootam di leen na yàlla na yàlla teg loxo njaboot ji yàlla na si yàlla def barkeel li mu bàyyi ci ginnaawam yàlla na ko yàlla barkeel jërë ngeen jëf naa la mbokk internet yi ñuy ànd ak tey ñu xamante ne mooy Dakar Midi ñàkk a siiwur naa la Dakar Midi wóorut parce que naa la kooku di maam Ousmane naa la ci li muy def ci liggéey bi fépp loo xamante ne tey actualité war na fa mën am mu ngi ciy dem di ko génnee di ko servir ñi nga xamante ne tey mooy mbokk internet yi kon jërë ngeen jëf dañuy jox di wéyal ak yéen ñu xool li nga xamante ne tey témoignage yi nga ne ay mbokku Pape Bouba Diop daal def ko ñëw fi nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy kër Pape Bouba Diop muy dëkkuwaayam fi nga xamante ne mooy Tëngéej Asalem gis nañ ne tey maanaam ñëpp a ngi fi nga xamante ne tey ak le calculé en changeur ñoo xamante ne ñu ngi fii tey toog pour ñu sekk ñoom tuuti waxtaan li nga xamante ne tey mooy Pape Bouba Diop di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko Seydina Muhammad teeru ci àjjana si di ko ñaanal bu baax baax maa ngi leen nuyu kilifa gi. waaw maa ngi leen fay. laaj tur bi nan la. Euh, man maay Pape Ñoxor Fall ancien international. Mm-hmm. waaye euh, di rafetlu. Euh, interview bi ngeen ñuy wax suñ suñu rak li ñu dal nii dal mboolu mbokkum sportif koo xam ne doomu doomu Sénégal la doomu Tëngéej la doomu àdduna la bon buuba suñu rakal woon ba pare yàlla def ñu bokk génération man mën naa wax ci moom lu bari parce que yàlla dafa def ñu jëndoo nawetaan mu ne si benn quartier bu mag bu ñuy wax Ndefaan man ma nekk ci quartier bu mag bu ñuy wax Dóor Fop defe naa daje nañ lu bari bon yàlla def bon mu jig fa dem saltige man mu jig fa dem gendarme mu jige saltige ñëw jaraaf ku nekk xam nga ja jaraaf ni muy mel moom muy jeu numéro 10 man ma jeu numéro 6 mais lu bari maa ko daan marqué daal mais comme ay doomu tëngéej lañ man ak moom daawul woon yomb waaw dina naxante nag ba kii am ndam am ndam mais ni mu demee nii daal bett nañu bett nañu mais sant yàlla rek dañuy rëccu rek xanaa li mu demee ndaw rek mais di ñaan yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jóge rek yàlla na yegale ndaw moom si naa mi kawe yi quoi. comportement Pape Bouba Diop ak seen diggante ak moom nan la doon comportement ci yéen. waaw ni mu doon comportement ci comme ni ko ñëpp séddalee rek parce que respect moom boo ko gisee da naan kii sax du sportif parce que respect mu am ci nit quoi si biti doone kii mooy Pape Bouba mi ne si terrain quoi. waaw mais bu nekk si terrain moom fulla ak fayda moom da nga koy sentir mais bu paree ci terrain ba nekk ci biti da nga naan kii du woon kii moo ne ci biir quoi muy koo xam ne ku baax ku social ñun xam nañ ci dara quoi parce que feebaram bii nga xam ne dafa noppi feebaram bii man mi yëguma ko woon parce que bi ñuy mujjee moom moo invité Dakar Sacré Cœur mat ci gala bi may ñibbi moom maa ngi ko bàyyi ak jabaram ak doom bi may ñibbi moo ma jox transport ne ma grand fekk ma kër ga lii lañ mujjee waxante man ak moom ma ne ko dinaa ñëw ba ni mu ñibbee ma am contretemps ba ma xëy rek ñu ñu tàggee ñu nouvelle bi quoi di ko ñaanal yàlla xaaral ko àjjana yàlla sàmm njabootam gi waaw ba ñu màgg daal ba seen pap fan ak yéen di continuer di wéyal suñu waxtaan suñu diggante ñi nga xamante ne tey mooy Pape Bouba di ko ñaanal yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla suuf woyof ci kawam di ko ñaanal yàlla ko yonent bi teeru fa àjjana firdawsi yi di ko jaale tamit bépp boo xamante ne tey sénégalais nga di ko jaale àdduna bi parce que naa ne Pape Bouba Diop Pape Bouba Diop international la woon Pape Bouba Diop àdduna la woon bu nekkee benn bés wala ñetti fan sax mus na bëggal sénégalais yi tey mbëggal ba mu ñu bëggal yàlla na ko suñu borom bëggal fële si àjjana tey maa ngi lay nuyu di la siyaare bu baax papa. Mhm. waaw rafetlu naa loolu seen teewaay fii parce que lii dafa dafa am solo parce que nit moom bu defee jaloore ba wàcc liggéey euh, ngeen ñëw euh, bugg a wasaare nit ñi xam euh, lan la doon pratiquer lan la doon dem ci àdduna loolu dafa am solo maa leen di remercier yàlla euh, guddal seen fal ngeen yàgg fi loolu te wér di am euh, mën a def yu mel nii parce que lii mooy tax ñu xam doomu aadama man na Pape Pape bu Diop suma ma rakk la moog su ma rakk ñoo doon joué loo bon mu jox ma cër lool man 2002 euh, man ci staff équipe nationale laa bokkoon bu ngeen gisee bokkaande bi mu gaañoo man la ñoom El Hadj Diouf doon laxasu bu man ak médecin ñooy toog ak Jules Bokkaande donc man œuvre naa yu bëri ci moom en équipe nationale mais xam nga am na yoo xam ne euh, yow euh, dañ koy denc sa diggante yaag moom la quoi fu ñu mujjee gisee mooy fii Tëngéej bi benn nijaayam gaañoo fii bu gisee ñëpp day bàyyi ñëpp ñëw sumay tànk na ma waaw mais père waaw foo nekkoon ñu commencé waxtaan sport donc xale bu yaru bu jox mag cër dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla xare ko àjjuna fii daw si Pape Pape boobu Diop boo nekkoon fii di di wax ci moom fii ba suba doo fi jóge parce que Pape Bouba Diop monde bi la parce koo xam ne moo jëkk a dugal biiw coupe du monde kooku euh, kii yam du fay mukk ci ci ci àdduna donc ñun ñi nga xam ne ñu ñu ay nijaayam dëkk Tëngéej nekk ay ancien footballeur donc dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana fii daw si ñun ñëpp euh, teew nañ ci bés bi dina ñëw ci bés bi xarlu ko bokk ko famille bi parce que ñoom euh, frère am yi ñëpp xam nañu sama diggante ak boobu euh, Bouba euh, ni mu demee woon donc équipe nationale bu ma nee tëdd rek mu ne ma ah su ma su ma lu mu jàppoon da koy bàyyi ñëw toog suma ma wet ma nekk conseiller am donc xale bu neex conseiller la dafa am yar am teggin donc Pape Bouba kenn mos ko dégg ci dara. parce que joueur yu bëri euh, am na euh, yu ñu leen doon wax ci ñoom mais kenn Sénégal kenn mosul ne Pape Diop kenn mosu ko reproché dara donc man euh, mii wax loolu xam naa ci dara parce que lu ma lu ma fekk la parce que man depuis Sénégal bu ñuy dem Caire 86 laa commencé nekk en équipe nationale donc sant yàlla yu bëri fekk na ma fi mën naa fi wax yu bëri yoo xam ne du ma fi jóge mais nag ci gàttal ah, ñun daal dañ leen di ñaanal yàlla seen télé bi. Euh, yàlla yokk ko ba fu raw seen njort euh, Pape Bouba nag euh, sportif yëpp teew nañ ci bés bi ñun fii dañu am amicale des anciens footballeurs de Rufisque ñëw nañu président bi mooy laay seen mooy doog a ñëw nii donc moom joué na avec toutes les génération joué na sax ak Pullo Pape El Hadj Diouf donc kooku tamit jar na ngeen euh, ngeen laaj ko lu mu xalaat ci bës bi donc lii daal ñëpp xaj nañ si si gàttal maa leen di gërëm di leen sant euh, prochaine fois dinañ gën a yaatal jotaay bi quoi merci jërëjëf. Euh, papa maa ngi leen nuyu di la ziar. tey ñëw ci li nga xamante ne tey mooy Pape Bouba Diop. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko jàll ñëpp di ko jàll famille Diop ñëpp di ko jàll tamit Sénégal di leen ko jàll yéen ñi nga xamante ne yéen nekkoon anciens joueurs yi nga xamante ne ni yéen a nekkoon ci équipe yi di la ko jaalee bu baax a baax Papa La Chaîne ñu ngi lay siyaare tey yéen loo ñu mën a wax tey ci Pape Bouba Diop waaw Pape Bouba li ma si mën a wax moom parce que Pape Bouba xale bu yaru la woon disponible parce que ñun ancien yi saa daañu ñëw fi vacances léeg-léeg daan ñu gis am lu ñu dox ay ci matériel ak yooyu waaw ku disponible ku yaru ku teey waaw daal xam naa ko ci moom quoi ku disponible waaw waaw waaw hmm? tey ñu dem ba ci ay diggante ñu social yi nga xamante ne mu ngi ko doon dox di ko defal fii nga xamante ne muy dëkkam ñu tënk fii si HLM tey boo xoolee Pape Bouba Diop maanaam ñëpp génn nañ ñëw di naqarlu li nga xamante ne mooy lycée Pape Bouba Diop parce que dafa demee fi mu ne Pape waxuma la HLM waxuma la Tëngéej mais Sénégal gi yëpp ñoo génn waaw du Tëngéej rek Sénégal gi yëpp yëpp ñoo ñoo koy kii fi mu ne waaw xam nga man nag dama mën waxoon mais sama yor yor sama kàddu Marcel mooy mu ngi nii Marcel Ndoye ne woon jaraaf mhm. waaw xam naa Pape Bouba daal ku disponible la ku yaru waaw ku bëggoon mhm. waaw loolu moom macha yal na ko yàlla yërëm ko te yërëm ñëpp Sénégal yëpp nag ñoo koy teeru du tëngee rek de du tëngee rek waaw wax fàttali leen toujours dina ko wax di ko jaale àddina bi di ko jaale ñëpp di ko jaale ne tey sénégalais nga di ko nga xamante ne tey parce que Pape Bouba Diop dina ne na bëggal ñi nga xamante noonu fële koo xamante ne naa la ni ñoom yàgg nañ xam nañ lu bari ci li nga xamante mooy Pape Bouba Diop te am na lu ñu ci mën a ay témoignage ñoom li mën nañ ko def suñu diggante ak ñun ak ñoom papa maa ngi lay nuyu di yu waa Tëngéej di nuyu le monde entier sportif di nuyu seen rajo bi euh, seen télévision bi yàlla na ci yàlla def xewal di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajo ki fi jóge suñu rakk la rakk boo xam ne dafa mel ni dañu maaseex moom parce que xale la boo xam ne yaru na baax na te tey na te déglu na nag ay magam ba yàlla defal ko li mu am te dëkk bi euh, sportif boo gis mu am réussite benn bi ñëpp fonk ko nii di ko defal lu rëy lii xamal na rek yaru mooy lépp te Pape Bouba noonu la meloon ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xara àjjana yi gën a kawe yàlla seddal yaxam njaboot gi yàlla na ci yàlla teg loxo ñu koy ñaanal di ko gërëm di ko sant ci li nga xam ne nag moo fi dajale nit ñi muy lii xew-xew bii ñëpp la metti amul kenn koo xam ne lii li mettiwul euh, xale la xale bu nekk mag xam nga di nga nekk xale nekk mag moom loolu la yàlla jàppale ko nag ba mu am li mu am kon nag ñu ngi koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana yaay Seydou Dia sallallahu taala alayhi wa sallam. asalaamaaleykum papa maa ngi lay nuyu di la siyaare di la jaale ki nga xamante ne tey mooy Pape Boudio mooy lu ñu bokk di ko jaale mbooloomu mu Sénégalais yi di ko jaale tamit àdduna bi ñëpp tey seen diggante ki nga xamante ne mooy Pape Bouba Diop ñëwoon tey dañ si laaj yéen souvenir ngeen ñu ci mën a wax yi nga xamante ne sekk ngi ko moom. waaw jërëjëf moom fii maa ngi lay nuyu di nangu sa jaal di la jaale aussi di ñaal di jaale famille Pape Bouba yëpp di jaale quartier HLM di jaale Tëngéej à tout les sportifs particulièrement les footballeurs sénégalais euh, souvenirs yi ñu am si Pape Bouba bëri na ndaxte dañu ko gis mu màgg waaye première fois ñu gis ko mu football terrain bi ñu toog di waxtaanee lañ ko gisee yàlla def ñu footballandoo ak ay magam ñoom ñu dugal ko am générosité dugal ko si seen biir mu football si biir terrain bi nee na ah yow day moom vraiment boo amee toppatoo lool te nga ñeme incha allah di nga réussir. ñeme ne veut pas dire que dafa ragal waaye mu gëm ne rek moom am na ay qualité donc euh, boobu benn souvenir la rek waaye yàlla def mu def carrière bu mag ba ñu ràññee ko si àdduna Pape Bouba nag nekkatul woon sax Pape Bouba national waaye Pape Bouba international la Sénégal yëpp di ko tiitaroo ñun nag waa Tëngéej ñu ngi si euh, tiis waaye nag dañuy sant yàlla parce que ku am ku la jooyal jaratul ngay jooy te yàlla nee tamit Euh, boo amee ku dem jooy ko tuuti ñaanal ko lu bëri donc fi ñu toll nag ñu ngi ci aalu ñaan dañuy ñaanal euh, suñu rakk ji yàlla yërëm ko xare ko àjjana di ñaanal suñu mbokk yi di famille ñu am euh, ñu gën a muñ rek te xam ne yàlla moo def loolu moo defee ni àdduna ku mu nama mu fekk programme am rek dina ko fekke donc maa ngi jaale ñëpp di ñaanal yàlla suma rakk ji yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana jërëjëf